su ma liggéey ci Benno Bokk Gis-Gis di nag coalition bu taxaw bees nekkoon ay nit yi nekk ci biir parti démocratique sénégalais ña nga fa ba léegi sax waaye daal seen yoonu bopp lañu ñu def jëmale kon ci jongante législative yi fekk législative yooyee ci biir Benno Bokk Yaakaar gis-gis gi daal benn la moo di nag ñu def nañu defoon net ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars si deuxième touru présidentiel bi maanaam wéyal ànd gi ñu teewlu seen kàddu ki yor ki yor seen kàddu coalition Benno Bokk Yaakaar naataango Assane Thiaw li nga xam ni moo waraloon bi ñu jëmee ci jongante yi nga xam ni ci lañu waroon tànn ki war a nekk ci bopp réew mi ah ñun ci suñu gis-gis ak suñu doxalin ñu jàpp ni coalition bi ñu war a mën a àndal ci liggéey boobu noonu moo di ak Ousmane Tanor maanaam bañ ko waxtaanee saytu ko seet ci yan tëralin ak yan doxin lañ ci war a ànde ñun ñëpp ñu nangu ko ah mu nekk jotaay boo xamante ni ñëpp ànd nañ ci mu nekk ñu dajal ci oh, ci ci ci ay valeur ak ay gis-gis yoo xamante ni defoon nañ ko ci benn projet de société bu ñun ñëpp ñu bokkoon porté ñu koy wax la république des valeurs. leneen loo xamante ni nag xëy na dañ koy rafetlu ci coalition bi moo di maanaam ànd bu nit ñi di ànd ci biir campagne bi ba ci tey bi jeexee ñu continuer di àndaat. ci benn stabilité ak benn compréhension boo xamante ni ah daana tax mun nañ jàpp ni pàcc bi ñu am ñun euh, mucc na euh, ay la yoon mucc na daal